كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي

daa xasida waaye ci ndigal Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Sow macha allah suñu naan la tey jii képp koo fi teew ci yëpp lenn ci suñu waaye rawatina ci xasida yi rek غدوت في العداء كعشقي صابرم ميغا خامني وسلل سما باس باس بيمي ليغيي رسول الله صلى الله عليه وسلم باس باس اك خلات ييغا خامني موم لا ام سما ديغنت صابرم با مودي مان سيرن توبا ما ام بيسانس دولا جو خامني دا ما ملني اب ارمي بو تاخو ييغي سيرن توبا بوغا خامني سيرن بي امنا كو diggam ak boroomam diggam ak rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ni wax na ne ab xaytu tawxidan wa madhan linnabi ladal buxuuri fawqa jaaril junubi wiital naa sama borom bi ma nekkee ci xaybatul baxriya bu mujj may mel ni Seydina Aboubacar ak Seydina Omar dafa mel ni kon yëg-yëg bi taalibe am mu yëg-yëg bi nga xam ne tey jii daa mel ni ci seenu lamiñ laa waxee ñu taxawe kan Alaaji Aliou Diop di ki nga xam ne mooy jëriñu ahlu xasida ginnaaw bu ñu jiitalee Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Soxaybu waaye waaye Serigne Cheikh moom Serigne Hamsatu Mbacke moom Serigne Souhaïbou waaye ànd ko bokki boppam yëpp ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha Cheikh Mouhamadul Basir Serigne Aliou dana ci ñëw Serigne Modou laaj bi nga laaj tey jii boo lambee xolom murid boo yëg xelam dajut lenn lu dul yëg gi Serigne bi yëgal ne waxtu wi soo masaa jot moo leen xeeti natt yi yëpp ni ko ko daan jóoree fan ak juróom-ñett ci weer wi su ma saa jot natt yi nu mu mas a dañ ko koy jóor ba ni mu agsi njaareem mu ko daan dikkal ci xeeti natt yoo xam ni kenn xamul naka lu toll natt yoo xam ni mboolem ummatu muhammad yëpp yëpp buñ la ko tegoon bu ñu leen ko tegoon dañ fanaan ci kaw suuf genn genn benn bis sëriñ bi di séntu natt yi ba bis rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ne ko al yawma akmaltu lakum ko tey jii nattu yi jeex na dara de lu dul cant yëg bi sëriñ bi amoon diggam ak rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi koy liggéeyal ba wax امدح بالنظر والنساء مما دمت قادرا على الكلام لفك سما لامي واغي من ييغوت دانا صاح تي تاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تاغ يويو لا واخني ييغنا تي من فو خامني ملني تي كيغا خامني مام لا كودون ليغيال نو خامني ملني كاونا اي فيت اك اي خيت

ba Serigne Moussa Ka di wax ni sama xalimaay sama kanu manaafi u faw xana kun ci lay defee manaafi liggéey boobee bi mu demee ba mat Serigne bi daa wax ne sama borom defal na ma loo xam ne sama cantul bopp mënu ko matal boo xam ne sa mbég sama mbégte la kon yëgal ni mbégtim Serigne Touba moom nga xam ne moom la aman bisub keroog wàllu ko murid yi ba keroog ñuy fekke Seexul Xadim yëg-yëg boobu képp ku su yaakaar Serigne Touba mooy sa passeport mooy màggal ak Serigne Touba nga defal ko sa bopp yow dof yëg-yëg boobu la murid yi ba màggal gi mokk ci ñoom nag bis li si Abdoulaye ne bis bi dañ ko wara téro ay bis gungee ko ay bis yëg-yëg bobu képp ko xamné ne nga Cheikhul Khadim lolo nga yëg lolay sa bus xorma ji nga xamné ñan na suñ borom ba jaw ji di buntu ci bunti asamaan yi ñaan na suñ borom ba lam waxoon ne wa hurmatil malaikatil hurril kiram wa hurmatil ka'bati baytikal haram wa baytikal ma'mur ya rabbi wa ma yaduruhu min malakin fawqa sama wa jaahi kulli jihudan min salih aw mursidin أو عابد أو ناسح وجاه كل من إليك ينصب هب لي ما منك جميعا أطلب كون حرمين شريفين borom urma yooyu nga xam ne am na ko doon na ko ñaan seen barke suñ borom may na ko may na ko ko mu suul ko ci biir suufa suuba si muy jaww ji ananum ko ko may dafa wax ni habliya tanzima jamil hurumat allahi wakfini shaqa wa nadamat waxaat ne wali yahab tanzima kulli ma wajad tanzimuhu yaa man yaxudul ayam kon batum màggal li sëriñ Sall wax ne sëñ Tuubaa lañ ko jëkk a déggee loolu daana ci biir xasida yi kon sëñ Nuudu day mel ni formation de soudure nga xam ne barki dem rek la ko Serigne Hamsatou Mbacké yëpp moom mii mooy jëwrin waa axlu xasida bàyyi leen mu mel ni tey jii axlu xasida amati nañ ñu ndam fii ci Touba du ñu wax sax Touba amati nañ ndam rek la ñuy wax ndax tey jii bis bi nga xamante ni mu nga bàyyee ko woon ci Cheikh Sidil Mokhtar mu joxe woon ci ndigal mm-hmm. ñëw féetali li nga xamante ni moom mooy liggéey bu tedd bii waaye tey jii lu mës sa am Touba am am Touba ba Aline mhm. mbooloo ba kenn amul fooy teg sa tànk mhm. fii ci jumaa ji mu fees dell ak ay sàppe li génn jumaa ji mu fees dell ak ay sàppe mhm. ba Aline Diop tey lan mooy jàngatam tey fii ci jumaa ji waa xanaa Serigne Modou gannaaw bi ñu sant yàlla julli ceen bi sala salaam di bëgg rek di bëgg bëgg bëgg tey gën a bëgg waaw di sant sant sant tey gën a sant man ci maanaam bisub sant bi nga xam ne ci lañ nekk euh, mu mel ne màggal gi moom am na ku baax ku ma sa wax ne euh, màggaluk Sëriñ Tuubaa gi ak ab liir ñoo yem maanaam mbubb moo ko dogal ren bu déwee ne da nga koy dogal meneen ndax dootu ko jot loolu mooy doxinu màggal gi ndax xam ngeen ne liggéey bu tedd bii ni ko sëñ Mame Mbaye Guèye waxee mën nañ ne bi mu jógee ci ndigalal Sëriñ Tuubaa yokk teg màggal gi ñu dolli ci ay fan mu ngi jóge ci Lamine Cheikh Abdoul Ahad mu barkeel ma waaye nag màggal bisu benn fanu safar bi moom mi ngi bàyyi ko ci Cheikh Seydil Mokhtar waaye ku ne xam na ne Cheikh Ahmadoul Mountakha moom day dolli rek ma waral nag bis bi mel nii mu mel te lii ab tàmbali rek la ndax Touba moo mel nii fi ne waaye diir bu gàtt àdduna sëpp day daj ndax sëriñ bi koo gis muy dox jarul laaj njariñ lu ko jariñ rek a tax tax mu jóg ñi baax nañoo bëgg a jariñu ñi mel ne nen dañoo bëgg a jariñu ca njariñal bindee fi yàlla mu ko moom moo ko dajale teg ko ci loxol Serigne Touba nafa ani wa bie yan faul wara kon njariñal bindeef yëpp mi ngi ci loxol Serigne Touba te nit ñaa ngi gën a yeewu ci Serigne Touba nit ñaa ngi gën a yeewu ci Serigne Touba nit ñaa ngi gën a yeewu ci Serigne Touba bisam bii nag di weeram wii nag day loo xam ne maanaam nun nii nu koy dundale fii soo demoon ci malawul axlaa noonu lañ koy dundale foofee boo demee àjjana ca firdawsi noonu lañ koy dundale foofee ndax lu dul màggalu sëñ Tuubaa gii bés dana xëy ñu ne loolu amatut lu julli baax baax baax kenn du julli ci biir bàmmeel yomal xiyam dee su fa julli àjjana li woor di baax baax dee su ko fa def lu ci ne am na fu mu yem waaye màggal ak sëñ Tuubaa gi bi mu tàmbalee dootu dog sëñ Saliou nee na li àjjana di neex neex neex neex saa bu màggal gi ñëwee danañ dolli neexaay wa dolli rafetaay ba dolli taar ba ba ñëpp xam ne tey jële bis sëñ Tuubaa bi kon bis bii mooy bis bi dul fay kon nag képp ku yàlla dimbale nga yëg bis bii ca di ko dund war ngaa gën a sant sëñ Tuubaa war ngaa gën a di sant boole ta bokk taalibe di ñaanal sëriñ Amsatu Mbàkke suñu jëwriñ ju tedd ju baax ji suñu borom gën koo dëgëral te gën koo kattanal te gën koo tawféexal ba liggéey bii mu yéenee liggéeyal maamam ci gannaaw ci gannaaw magam ci tedd ji di Cheikh Ahmadou Mountakha moo yeggale ko fa mu ko bëggee ci barke borom Tuubaa di ñaanal itam nag sëriñ Bassirou Moussa Abdou ndax lii su ma nee amee nii Eh, ci ndimbalam ak ak jàppaleem ak ak yegam moko waral kon ñu koy ñaanal bu baaxa baax li ko señ bi yenn mu woyof toy mu yóbbu ko fi ko señ tuba bëggee di ñaanal boole mbeur yi magal gi doon magal gu tey gu neex te ñepp jekk ko ci barke xasside yi dama bëgg bëgg mo xamni ni and ak mëna wax waye na ngeen seereen daal loolu señ bi na waja'ani bi busharin lam takun wala takun abadan li mumkini dikal nañu tey am nañ bëgg mo xamni musta am te dootu am te li rek ko waral alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh rek waajal bisu Serigne Touba bi nga xam ne amuñu lu dul moom dafa wax ne taarix ba ama jeey sa sin mooy at ma moo di lëlub Serigne Bassirou mbég ma nee na la yàlla defalan kalima fii dëhri yi defal ko Ibrahima ba yàlla buur ba faratal tabaski ak tam xarit may na ko gaa yi Mbàkke bi xidmatil xadiimi lil maqduumi fil bëri farlu leen ila taxsim ndax nee dooga nag dem gi wolof nasaraanu te kon billahi ñëpp dem ni niiran دفعني سبب غيبتي أن الله أراد أن أنال من وجهها وأن أكون شافئا لخومي وأن أكون خادما في ليس لي سيري علي جوب دون دوند لغي سي عبد الله دا وخني اجانا لامي نيه نيه امول اي بيسك وير واي بيسب سنتوبا بي بو نيوي ajjana dana xam ne dana wodduwaat dana dana danañ ko teeralaat ci danañ ko teralewaat ci ay ndebi ternde yoo xam ne ku ci mës a jëfal sëñ Touba dara sa sa ndabal teranga daana la fekk bañ ne ah bisab sëriñ Touba delsi ci la ñuy yëgee ne at mi delsi na weer wi delsi na bis bi delsi muy bis boo xam ni sëriñ bi dafa wax wax ne sàllaw moos baaxoo maa jaay suuf baaxoo jaay kër waaye bu amee lu ko jar ci man mooy bisab sëñ Touba bi ñëw te aw ma lu ma ci kon dañuy waajal lii wàccaay la rek mu mel ni àddina sëpp premier safar ba 18 safar bis bu nekk surchargé na ci murid yi ba lañ cay def dañ naan waaw ñii buñ jëmee ci bis bi ndax daañu mën dara loolu nag daa mel ni sëriñ bi la waxoon ne mawaahibul ilaahi yi yëpp sama borom def du ko teg sama loxo léegi mën a fi bi lee ak dara daa mel ne weer wi moom weeru xéwal boo xam ne waa meewu xéwal yi sëriñ Tuubaa tab ak boppam bi tawfeex ji ko sëriñ Tuubaa may day mel ni da koy sotti murid bu am yéene jëf kon day mel ni ñun màggal gi laf nañ ko nopp sëriñ Aliou daa ma sa wax sëriñ Seydou ne amuñu lu ñuy bëgg ndax luñ dem bay bëgg sëñ Tuubaa defal genn bëgg rek la ñu am mooy nga yàgg fi waaye nun day mel ni kon luñ dem bay bëgg sëñ Tuubaa defal na ko bis bi jot ñu jaay ñu jaay suñ lépp jox ko sëñ Tuubaa loolu rek nu dese waaye jekk noonu ñun ñun murid yëpp ndax bis bii day bis ci te boo xam ni tey jii la Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon ci lii ñu jógee ne sofal Dakar ngi bég di sigiréwu waye jaw seigne touba ji tey bëtam ba nga xamne ne tey ji mboolem koy wax ashhadu an la ilaha illallah wa asadu muhammadur rasulillahi sallallahu alayhi wasallam am nga mbek ci dem gi mu dafa wax ni muidu ahmad audin qutli karam fi kulli shahrin wa yawmin fi ka dafa wax ni nima jëmmee joxe seen bop non la ma ko weer joxe sen bop bi siñ mënta non non lañ mako joxe wala darika saaret li suhuuru wal ayyam kal asqaasi bi fadli man jaada bil ixtisaasi kon bis bi tay mom xamna sëñ Tuubaa ndax da wax ni wahab lahu ya rabbi yow ma sabti wa kullu yawmin yaa fi am min nafti sam dég la ca ne lépp jox nañ ko sëñ Tuubaa wabloo yar bi min yawmil ahad ahla busharatin lada kulli ahad kon dimanche du wabloo ya rabbi filis nay ni fawqan mun a wal hajji mun nay wajulhu ya rabbi fi sulasa bi mihdari rubai wa sulasa wabloo rabbi bi yawmil arbaa ya baqin wa murwan wa fisa wa fil xamisi hablahu fawqan mun a ya man jaxaltu aminal umada wa hablana ya rabbi yawmal jumaa fawqan mun a kon day mel ni bis yëpp ñu jëbbali sëñ Tuubaa seen bopp yëmuñu ca waaye lay njëriñu bis yi ak seen i xewal jox nañ ko sëñ Tuubaa waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh التي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم